tane soulager askanu Sénégal par rapport ak euh, li ñuy dund ak actuellement. ci même logique bi ah boo ma ko permettre aussi pour rebondir ci même logique bi rek laa jëm. vas xam nga Fatima ñun suñu problème. ak hmm. euh, surtout yenn sociétés yi nga xamante ni dañu am lu ñuy représenter Sénégal am lu ñuy participer également si dundu nit ki. suñu véritable problème ak ñoom mooy du ñu communiquer directement avec les Sénégalais pour la plupart ñi ñuy communiquer c'est des intellectuels hmm. des communiqués am na yenn société wala yenn entreprise yi nga xamante ni même dañu war a nekk en parfaite collaboration avec euh, avec euh, certaines presse mm-hmm. am ay émissions yoo xamante ni régulièrement dañu war di communiquer directement ak les sénégalais xam nga si lu tax ma bëgg a indi loolu mm-hmm. gis nga gouverner aussi c'est prévoir que ce soit muy Sénélec bu hausse waree am ci énergie bi xam nañ ko mais il faut prévenir aussi parce que man dama gis ni gouvernement yi sérieux yépp gis nga que ce soit Espagne que ce soit muy France que ce soit muy Italie bi Covid 19 bi amee ñëpp xam ni crise Russie bi am du moins ñëpp xam ni boo moytul fi ñu jëm électricité bi dina yokk ñoom ñëpp dañoo dem communiquer directement avec leur peuple xamal leen ni. li ngeen di dundee seen consommation en climatisation wala en énergie na ngeen fexe ba wàññi ko. c'est un défaut chez nous. c'est un euh, très communication c'est un très grand défaut c'est vraiment un défaut chez nous muy régime bi fi jugee régime bi nga xamante moo fi toogal. parce que pour ñoom dañoo am problème mu wax ak. askan wi wax ak li nga xamante ne mais il faut ñu nga le mouvement des entreprises français. Mhm. dañu def communiqué non seulement loolu le président Macron dafa génn wax ak mouvement des entreprises wax ak entre kii industrie yëpp. ne leen seen consommation en en en énergie na ngeen ko wàññi parce que fi ñu jëm boo moytul nar na metti mhm. sénégalais bi nga xamante ni du moins le français bi nga xam ne dafa yoroon climat ci climat climatisation si biir këram di consommer nga wax ak moom ba mu mën a réduire parce que fi ñu jëm ñu mën a am réserve bu nga xamante ni aujourd'hui dina leen permettre fi ñu mën a jëm du ñu dund conséquence yu métti mais fii Sénégal ce qu'on remarque mooy da ngay xëy robinet tëj doo amee fenn information xëy nga di bëgg a taal sa robinet mu ne këpp tëj maintenant sénégalais dafa war a yeewu xam ne tey jii robinet bi du am ndox. Mhm. parce que tout simplement communiquer moo tax ma ne il faut ñu travailler avec certaines presse ci lu mel noonu di waxtaan ak sénégalais régulièrement ci li nga xamante ni bu surtout bu ay tension amee. Euh, surtout flambé prix yi am loolu il faut nga communiquer régulièrement avec le Sénégal loolu nag c'est un très grand défaut chez nous. Mm -hmm. gouvernement comme ni ñu ko waxee. Mhm. dégg nañu c'est demain le 15. Mm-hmm. aujourd'hui c'est le 14. sëñ bi maa ngi war nañoo takk jabar. non <laughs> pour man aujourd'hui c'est le 13. kon wuti soxna maa aujourd'hui c'est le man sama wax ju bari ji. kuy miiri wax sax xamul tey man sama wax xalaatuma ko sama wax ju bari ji soxnaa koo ah. dindi. waaye sa fàtte gu metti nga nekk soxnaa koo dindi. Ah. vas waaw de toute façon en tout cas l'avenir nous dira parce que j'ai toujours dit que ni un engagement c'est une promesse. oui c'est une pro c'est une promesse une promesse également est une dette parce que tey pour man le plus important mooy ut ay circuit ay plan d'action yoo xamante ni aujourd'hui dina mën a fexe ni ñu gën a mën a atténuer les besoins les plus fondamentaux des Sénégalais parce que foofu la leen Sénégalais yi di xaar aujourd'hui tey mooy premier défi bi nga xamante ni bu ko son excellence le président Bassirou Diomaye fay réussiré mën nañ gën a am yaakaar ci moom itam mhm. parce que tout simplement man damay repondir un li ma waxoon dama wax ni quel que soit alpha bi ñuy door a ñëw di installé wu li ma waxoon ci position boobu laay wax mhm. dama wax ni quel que soit alpha bu ñuy def seen formation gouvernement bu bees bi nañu tenir en compte contexte bi ak conjoncture bi dund bi jafe na mhm. te pour la plupart ci sénégalais yi leen fal c'est des sénégalais yi nga xamante ni aujourd'hui dund gi njëgu dund gi dafa leen sonal carrément donc nag tenir contexte bi en compte mooy dexe fexe d' abord ci te dans un premier temps gis naa ni def nañ ko mooy fexe ba fusionner yenn administration yi gouvernement ñu fexe réduire le train de vie pour que lañ cay am ñu mën ko dugal ci dund gi. léegi nag le président Bassirou Diomaye Faye il est en train de bien faire quand même ak lu ñu mën a wax itam parce que ñi nga xamante ni mooy le secteur concerné. Mhm. ñi nga xamante ni ñoom ñoo seq mbir moom pour qu véritablement ñu mën a trouver des circuits ensemble pour réduire le train de vie des Sénégalais na leen waxtaan ak ñoom ku si nekk aussi tamit. laaj na la sa xalaat ak yan yoon ak yan voie lañ mën a aw pour que véritablement ñu mën a wàññi loolu parce que damay wax ni état heure bu bëggee rek mën na quand l' état peut le quand l' état veut, veut mhm. il peut mhm. donc loolu c' est une réalité mhm. donc ils sont en train de chercher véritablement des circuits pour pouvoir véritablement atténuer euh, le train de vie des Sénégalais loolu nag ñu leen ci xaar euh, d'ici euh, demain insha allahu rabbi et je pense que Euh, duñ ci duñ ci bett Sénégalais yi parce que acteurs yi nga xamante ni concerné leen toog nañ waxtaan ci ak ñoom. Mhm. maintenant nag li des mooy euh, c'est si demain l'avenir nous dira. et je pense que ñu ngi ci logique boobu. Euh, très bien Ibrahima wàññi dund bi bokk na ci la nga xamante ne moo euh, nekkin wi muy location beeg yooyu yëpp ci train de vie wu sénégalais yi la bokk ci ni ñuy dundee la bokk et tey itam euh, gis nañ ne jafe la mais tey ñu gis ne ne promesse la woon boo xamante ne ne def nañu ko def nañ ko sénégalais yi te itam joxe date muy datu le di ëllëg ak jàmm noo gisee li nga xamante ne moom moo di wàññite bi ndax mën nañu am loo xamante ne day doon. luy durable wala loo xamante ne ne dañ koy wàññi rek après ñu daal di euh, xoolaat leneen. foofu damay laal ci mbirum courant bi ñëw jugg ci wàññi dund gi. Mm. soo xoolee président Macky Sall bi ko waa banque mondiale imposé nekkoon na teggi subvention cent milliards yi ne ci courant bi dafa bras de fer ak ñëw dem ba ci biir moo xam ne mënutul nekk bras de fer mënutul nekk mu teggi subvention cent milliards yi. loolu moo andi presque yokkute bi nga xam ne moo andi coow ci courant bi. pourquoi Banque mondiale ak FMI parce que c'est eux qui sont les bailleurs qui financent les États. ils ont des missions très claires trois missions la ñu am yoo xam ne dañ koy exécuter à tout moment ñoom ñoo yor bu ñu lay financer aussi dafa am benn cahier de charge boo xam ne. yow da nga koy ah, andi ñoom tamit ñu andi seen cahier de charge boo xam ne yow da koy respecter. Mm-hmm. et seen cahier de charge day ëpp doole sa bos parce que ñoom seen intérêt dañuy gën a ciblé dañuy bëgg bu ñu investir léegi. ci nu mu gën a gaaw ñu récupérer waat seen xaalis et ils sont obligés dëkk yu bari soo obligés de se soumettre à leur cahier de charge quand on se rappelle des des, des propos de Ousmane Sonko qui disait que dans l'opposition bu ñu faloo on n'aura pas besoin de la banque mondiale ak waa IFMI soxla wuñu leen mhm. parce que dañuy appauvrir ay dëkk te bokk nañ ci lu ñu appauvrir mhm. mais ñoom ba ñu falo première semaine bi ñu njëkk a bi ñu faloo ils ont envoyé des émissaires auprès de la banque mondiale pour pour un prêt ñu jógee foofu defaat beneen émissaire bu ñu envoyé waat à l'occurrence le ministre des finances et le ministre euh, euh, de la planification du budget mm-hmm. dem FMI teg seen business plan pour ñu finance leen mais loolu FMI wax da lay wax ne ngeen xoolal seen copie loolu am na fi coow mais FMI ñëw nañ fi aussi ñoom def fi benn trois jours par rapport ay saytu sur le plan économique qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont demandé le projet bi nga xam ne moom la waa Pastef incarne les Sénégalais ba yegsi au pouvoir mais pourquoi le FMI a dispensé le projet de Pastef en attendant et s'appesantir sur le PSE nee na leen du financer seen projet pour l'instant pour l'instant damay sukkandiku ci financement au PSE bi ba 2026 mais ils l'ont accepté donc où est le projet dans deux est la vision la mission et l'objectif du projet concernant les finances étrangères pour mu ñëw Sénégal. est que foofu également comme ni ñuy faral di wax état de continuité. parce que ci biir plan boobu naam am na loo xamante ne ne baax na am na loo xamante ne itam. faw ñu joyanti ko. effectivement xëy na loolu itam comme dañoo door dara peut-être loolu bokk na ci li tax ñu demandé leen à que ñu reste ci PSE bi en attendant. Euh, deux ans yi pour mën